mbokk yi xarit yi ñu ngi leen nuyu di leen euh, dalal si émission bi nga xamante ni ñu ngi ci fas yéene waxtaanee wàllum SRAJ euh, di si ànd nag ak waa bureau conseil ado bu Fass Gueule Tapée euh, Colobane mu nekk projet boo xamante ni ñi ko duppee Fass E maanaam fas émergent ñoom ñu ànd ci ak waa UNFPA ministère de la jeunesse ci PPJ ak commune Gueule Tapée Fass Colobane ak seen rajo Afia FM fi nga xamante ni fi la ñuy defee bile émission ngeen nar si ànd ak Mame Seynabou Thiam sekk ci biir émission bi nag wax naa leen comme naa si ànd ak waa bureau conseil ado bu Fass Gueule Tapée euh, Colobane am ñaari père éducateur yoo xamante ni ñoo leen fi euh, teewal euh, di Babacar seen ak Khadija Niass damay tàmbalee ak Babacar bàyyi ko mu daal di nuyoo ak suñuy auditeur waaw ah, asalaamaaleykum mbokk auditeurs auditrices yu Afia FM maa nuyu ku ci nekk turam santam di nuyu di la nuyu yow mi Seynabou di la jaajëfal. Mm-hmm. man maa ngi tudd Babacar seen nekk père éducateur ci bureau conseil ado. Mm-hmm. bi ñu tëdd ci commune Gueule Tapée Fass Colobane à travers le projet Fass. d' accord euh, Khadija ñu bàyyi la nga euh, nuyoo. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu Seynabou. Mm-hmm. Euh, di rafetlu jotaay bi. man maa ngi présenté wu maa ngi tudd Khadija Niass bokk ci père éducateur yi. bu commune Fass Gueule Tapée Colobane en même temps présidente club des jeunes filles bu Fass Delorme merci. d' accord Khadija amal tàmbale yow nga ni ay père éducateur ngeen déjà père éducateur mooy lan. déjà père éducateur euh, pour commencer dañu jël pour ñuy gën mën di sensibiliser ci SRH yi. c'est-à-dire. SRH par rapport ak santé de reproduction jeune ado. Hmm. waaw parce que euh, par exemple dañuy faral di gis ni que ado yu ci bëri comme sama genre jigéen ñi dañuy faral di amee ay infection que ça soit perte blanche que ça soit mycose yi nga xamante ne peut-être mun nga mooy xale jigéen yi nga xamante ne duñu faral di sol ay silib coton nylon la ñuy sol te infection yooyu noonu mën na dem ba indi ay feebar surtout ci jigéen mën na dem ba tax doo am doom mm-hmm. waaw donc ci combattre loolu lañ nekk mm-hmm. waa merci. comme Babacar euh, ak yow damay ñëwaat ci euh, bureau bi nga xamante ni moom ngeen euh, am foofu Fass Gueule Tapée Colobane ak projet bi nga xamante ni moom si ngeen soobu muy Colo mooy Colobane muy. voilà projet bi mi ngi tudd fas E di fas émergent déjà lan moo leen motiver ngeen xalaat ni war ngeen taxawal benn projet di fas E ak bureau boobu lan moo tax ngeen créer ko foofu. foofu ci commune bi. damay revenir juste pour gën a clarifier que ne projet PASE euh, projet multisectoriel la maanaam volet yi dafa am volet santé moo ci lañ nekk ñun bureau conseil ado bi am na volet économique am na volet autonomisation des femmes am na volet éducation tamit. Mhm. projet benn projet bu gigantesque la. nga xam ne li mu ëmb dafa ëmb système des Nations Unies yëpp mhm. waa UNFPA nag ñoo ko lancé mooy le Fonds des Nations Unies pour la population mais dañ ci nekk en partenariat ak. yeneen système mu Nations yi comme waa ONUDI ñoom ñooy yor formation professionnelle yi. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ak waa ONU Femmes waa ministère de la jeunesse tamit vu que ne ci affaire jeune la ñuy wax ñëw fekk si leen ci. léegi nag comme ni ko sama naataango bi waxee Khadija léegi pères éducateurs yi ils ont été bien formés ci ay session de formation yu bëri sax dañ leen former en tant que relais communautaire maanaam déjà mission de sensibilisation dañ koy def au delà de loolu yëpp gars yi gis ne courant bi entre maanaam entre jeunes lay gën a dox bàjjenu gox yi a un certain moment gis nañ liggéey bu jéggi dayoo bu ñu fi def mais dañu gis ne xale yi des fois dañuy am kersa wax ak mag yi. Mm-hmm. ñu gis ne mag yi parent yi itam dafa am affaire yoo xam ne dañ koy jomm wax ak seen. seen doom yi wax tabu. mooy sujet tabu yi léegi nag loolu day indi zone de désinformation maanaam jeunes yi du ñu am information bu baax bi loolu moo tax gars yi former père éducateurs yi nag. Mm-hmm. léegi ci domaine bu ñu leen di former mooy SRH mooy santé de la reproduction des jeunes ak des ados. Mm-hmm. volet bi dafa rëy comme ni ko Khadija waxee am na lu ñu naan maanaam grossesse précoce yi. Mm-hmm. gars yi dañ ciy waxtaan à travers des causeries des visites à domicile. bureau bi tamit am na ñaari membres permanents yu fa nekk boo ñëwee dañ lay accueillir entretien kooku ci prévention bi la bokk au delà de prévention bi am na lu ñu naan prise en charge comme ni comme ni mu la ko waxee léegi-léegi boo amee substitution d' infection maanaam loo xam ne jëw jomm nga ne infection moo la dal parce que bu ñu causerie ba pare. boo toogee causerie ak sa morom ba pare causerie bu jeexee da ngay gis kenn jóg déplacé wu ne la ah man ne li nga wax lu nu lu niroog loolu kii na ma nga jox ko rendez-vous mu ñëw bu ñëwee gars yi koy dugg xool bu fekkee dafa am infection boobu gars yi ko prise en mm-hmm. loolu waaw bu loolu yëpp weesoo tamit dañuy lutter contre les VBG mooy violence basée au genre maanaam ñu ñu bëri xamuñu VBG lu muy tekki ñii ñu ngi koy def sax parce que ñax dañ ko xamul am na ñoo xam comme parents yi. surtout ci période bi ñu toll ni muy période Covid bi nga xam ne ku góor ke ku jigéen képp dañuy toog ci kër gi. Mm-hmm. dafa ñu dara mais dañu gis ne man ñun par exemple ñun xale yu góor yi des fois parents yi dañuy xaw a privilégié dañuy toog jàkkaarloog télé bi gars yi ndékki ku jigéen ki débarrassé raxas mm-hmm. bool añ même chose bale mm-hmm. tuuri mbalit te or que loolu tâche yooyu nekkul tâche yu jigéen tâche yu nit la ni ko ku jigéen ki di defee ku góor ki war na ko mën a defee noonu yooyu dañ ciy waxtaan ci causerie yi loolu boo ko inculpé xale bi ba muy xale bu màggee day màggaale moom moom léegi-léegi mu ngi présenté wu comme en tant que président club des jeunes filles ci biir projet bi tamit dañ formé ay club des jeunes filles club des jeune fii association de jeune filles âgées de dix à vingt quatre ans la ñu ngi ñu ngi Gueule-Tapée ñu ngi Fass ñii ñu ngi Colobane dañ leen di former pour ñu doon ay leaders maanaam comme tey waa AFIE li ñu def nii jox jeunes yi parole dañ leen di former ci loolu. Mm-hmm. wax bu jotee ñu war wax parce que dañu sentir ne jigéen ñi dañ nekk trop en retrait. Mm-hmm. te loolu du yoon maanaam instant dañu bëgg ñuy participer ci gestion wu cité bi. ay événement yu amee gaa jox leen seen temps de parole ñu toog wax ci. si seen centre ba tey euh, c'est vrai ne nga di ngeen def ay VAD maanaam da ngeen descendre sur le terrain dem à la rencontre des jeunes même eh, mais est qu'il vous arrive jeunes yi seen bopp ñëw auprès de vous pour exposer leen seen problème ngir mën a am solution. bien sûr au début tout à fait au début peut-être gars yi xamuñu ko woon mais bi gars yi defee dañ defoon ay stratégie intégrée maanaam dañu wóor def campagne def ay campagne de dépistage. daf ay VAD ay causerie jaar ci association yi ba gars yi xam entité bi léegi jeunes yi seen bopp ñooy ñëwal seen bopp dañ ko bañ ba bureau bi ni ñu leen ko dañ ko def de telle sorte que porte bi mu am porte bi porte bureau bi da ngay ñëw dugg ci biir bureau bi kenn du la xamal kenn du xam fi nga jëm. Mm-hmm. maanaam c'est tout à fait normal. ba pare li nga fay wax discrétion totale moo fa am ñaari membres permanents yi fa nekk da ngay ñëw ñu conseiller la bu laajee orienté ñu orienté la bu laa prise en charge ñu defal la prise en charge. Mm-hmm. Euh, en général ban tranche d'âge Khadija euh, ñooy ëpp lu ñuy lu ñuy ñëw di leen euh, di leen consulter. en général comme ni nga ko waxee rek tranche d'âge bi mën na commencer diggante dix onze ba vingt quatre ans parce que boo xoolee léegi infection yi amatul age amatul age donc du coup dañuy dañuy jot ay suggestions partout partout te en plus li si gën a intéressant mooy Euh, par rapport ak VAD yi amul kii xale la 11 ans la am wala 10 ans du bokk ci VAD dañuy ànd ak comme genre ñu ànd ak deux mag yoo xamante ne am nañ 18 ba 24 ans boole ci ñaari xale nga xam ne tey jii bu ñuy wàcc sur le terrain dinañ miin lu ñuy def. Mhm. xale que ça soit xale mag ak ndaw ñëpp dañuy bokk nekk benn xeex. Euh, SRH yi. à part à euh, infection yi ñàkkul peut-être euh, bu ñu xoolee neen fi waxee yépp jigéen ñi ñoo ëpp su ma ko mënee jàppee noonu ci ñi ngeen di offrir ay services wala ñiy ñëw ci yéen mais à part infection yi amul yeneen problème yoo xamante ni muy góor comme jigéen jeunes yi dinañ ñëw ngir euh, ngir waxtaan si ax yéen. bien sûr bien sûr parce que boo xoolee infection du dal jigéen kese infection day dal góor. Mhm. parce que par exemple boo xoolee xale yu góor te see seere boobu muy seere mën nga dox ci tàngaay bi mu indi la ay infection kon que ça soit góor ak jigéen képp ku am problème boo mën a soulever da ngay ñëw conseil ado la ak jeune ça di dire que ado yi mën na nekk góor comme mën na nekk jigéen mm-hmm. waaw épargné benn tranche d'âge mm, Babacar waaw mooy li doon wax léegi rek affaire bi SRAJ yemul ci infection kese mm-hmm. bañ na ko ba ñun suñu campagne yi dañuy dugg ci école yeeg léegi-léegi maa ngi lay wax VBG au delà de loolu rapport rapport euh, sexuel précoce yi gars yi dañ koy xeex maanaam abstinence dañ la koy digal méthode de contraceptive yëpp da nga koy xam est-ce que comprendre nga li mu la wax yemuñu ci xeex infection rek ëmb bu teel bi dañ koy xeex maanaam VIH sida dañ koy xeex nan lañ koy xeexee à travers suñu campagne de stratégie de dépistage intégrée parce que nit boo sida ku ko xam dëgg du ko tiital nit boo xamee sa statut des fois di ngay gis nit koo xam ne mu ngi vivre ak virus bi mais d'après traitement bu ñu muy jël boo xam ne prise en charge bi ñu koy defaral mu jël ay ARV. dina dund ba yàlla jël ko heure am jot te doo mus a xam ne kii loolu la ko dal. moo tax à travers suñuy campagne dañuy def ay dépistage massif ci commune bi gars yi di dépisté wu di xam seen statut. au delà loolu wax naa la léegi-léegi ci grossesse précoce yeeg rapport précoce yi fi mu toll nii bureau bi lenn moo ko tax a jóg. taux de déperdition scolaire bi ci indicateurs yi taxoon gars yi créé bureau bi ci la bokk maanaam mooy daw jàng bi. Mm-hmm. ak xale yu jigéen yi tam gis nañ ne boo xoolee élémentaire elles sont excellentes. Mm-hmm. mais looy gën di yéeg ñiy gën di wàcc. looy gën di yéeg ñiy gën di wàcc après de session de formation que échange. selon vous d'après vos études lan moo causé loolu xale yu jigéen ñi looy gën di yéeg gis ni seen taux seen taux ci école yi mi ngi mi ngi gën a wàcc. boobu dama siy sawar wax parce que boo xoolee léegi euh, mariage précoce yi. day faral di tax ni que euh, fuite scolaire day am ñu si bëri du ñu bàyyi seen doom yi ñu jàng ba yeggali donc loolu aussi dañ ciy xeex mooy mariage précoce grossesse précoce en même temps aussi club des jeunes fii bu ñu koy taxawal parents yi parents yi nga xamante ne seen doom dañ see bokk dañuy ñëw toog prêter serment ni que nga toog sa doom toog nga prêter serment ni sama doom duma ko teel a may naa ko bàyyi mu continuer jàngam xale yi aussi ñu prété serment ni que fii ba ba may am jëkkër duma joxe sama bopp duma ëmb Mhm. yooyu yëpp ci sermon yi lay bokk avant ñuy commencer suñuy activité mhm. merci euh, mais la du temps dañ gis ni da ngeen di éviter affaire mariage précoce affaire yooyu ñu gis am na ñoo xamante ni li ëpp li ñuy mettre en avant mooy xale yi pour ñuy def li di planification familiale mais est-ce que c'est pas plus pertinent ñu dugal ci boppu xale yi abstinence maanaam téye sa bopp comme dañ am ay réalités socio-culturelles yoo xamante ni loolu lañ ñu que ñuy euh, wax xale yi parfois boo boo ko nar a def dama utiliser ay méthodes euh, euh, préventives. bien sûr mooy li ma mooy li ma souligné léegi que club des jeunes filles balaa nga siy bokk da ngay prêter serment sa parent bi la indi aussi day prêter serment ni que sama doom dina ko bàyyi mu continuer jàngam ba keroog yàlla am lu mu siy dogal. Mm-hmm. pour éviter grossesse précoce yi mariage précoce xale bi aussi day juré ni que tey jii kat man du ma ëmb tant que aw ma jëkkër mm. te il suffit que nga taxaw foofu juré ko loolu dina la may kersa boo xamante ne genre da taxaw juré devant ñëpp kon doo doo doo ko def daal di nga ko xaw a éviter mm-hmm. en même temps aussi dañuy xeex aussi si euh, délinquance juvénile bi parce que boo xoolee léegi taux de chômage bi dafa dafa bëri mm. jeunes yi da ngay gis ku dem ba master nga gis ko mu toog ci fan nga dem ne la am na master kii ne la am naa licence aw ma liggéey aw ma dara. Mhm. donc du coup chômage boobu noonu day tax ñu nekk ci mbedd bi mooy délinquant juvénile di sàcc jigéen ñi di tendre à la à la prostitution. Mhm. ak yu bëri prostitution déguisée et tout. Mhm. waaw mbokk yi di leen fàttali yéen ngi suivre seen émission bi ñu ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di waa bureau conseil ado bu Fass euh, Gueule Tapée euh, Colobane ci projet boo xamante ni taxawal nañ ko mu tudd euh, fas e di fas émergent liggéey ministère de la jeunesse à travers PPJ ak commis euh, ak commune bu Gueule Tapée Fass euh, Colobane tey nag wàllum SRAJ la ñuy waxtaane maanaam santé de la reproduction des ados et des jeunes tey may dalal euh, Fatou Khadija Niass ak Babacar Sène ñoom ñaar ñëpp ñuy ay père éducateur féete fa nga xamante ni moo di Fass Gueule Tapée Colobane Babacar damay ñëw si yow léegi nii Khadija dafa lum souligné mooy di wàllum délinquance juvénile buñ koy wax góor ñi mën nañ gis ne ñoo si gën a fës parce que la plupart du temps wàllum violence yi na koy gën a fësal est-ce que loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni yenn saa yi di ngeen regrouper jeunes yi eh, di waxtaan ak ñoom ngir ñu éviter lépp loo xamante ni wàllum violence la. waaw boo gisee bureau bi loolu sax bokk na li tax gars yi gën ko former maanaam kooku dafay bokk day dugg ci volet stratégie bi maanaam entre pairs entre jeunes nous on se comprend. maanaam tey jii man mun naa jóg en tant que jeune def benn acte boo xam ne damay jàpp ne acte bi man la concerné or que acte bi dépassé na ma comme ak affaire yi nga xam ne am na fi récemment rek ci Covid bi nga gis ñetti xale yu dëkk maintenant presque génn taxaw wala yu dëkk Fass génn taxaw di fecc wala di kii gars yi gis ko au lieu que ñu ne am na ñett ñu ñu gis non non ne waa Gueule Tapée ak Fass Colobane la ñu gis. maanaam loolu dem na ba dépassé leen. léegi ñun à travers suñuy causeries yi ak suñuy visite à domicile yi loolu dañ ko ci inclure. maanaam ñun ak ñun xam ñun ak suñu biir xamante nañ am na loo xam ne boo ko defee balaa muy génn sax dañ lay ñëw gis ne la champion ñu nga ñëwoon toog ñu waxtaan ne la ah li nga def nii de bul ko defati parce que ñaanu trop. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy toog toogaat ne la wax fa dëgg yàlla li nga wax dëgg la. Mm-hmm. am na ñoo xam ne tamit danga leen di wax ñu comprendre noppi. mais ñu ngi jéem a xeex loolu ba nga xam ne di si quelque temps dinañ ko éradiquer. wàllu violence. waaw bureau bi boo ko gisee maanaam ni ñu ko defee dañ ko def de telle sorte que dañ bëgg a lépp nekk en symbiose. Mm-hmm. maanaam ñun jeunes yi ñooy naan gars dañuy épingler maanaam gars yi dañuy dañuy dañuy def dara pour jeunes yi sans dugal ci jeunes yi ñun ñoo xeex di kaas di kaas ne loolu bëgguñu ko léegi nag gars yi bu ñu demee ba ñuy jiital maanaam di ñu jox ay voix à travers des émissions. wala ay événement phare am ci commune bi. ñu jox ñu ci suñu quota jox ñu suñu temps parole. commune bi yëpp taxaw. kon ñun dafa am comportement boo xam ne dafa war a nekk ci ñun. loolu la ñuy inculper jeunes yëpp. maanaam képp kum ci doon acteur culturel bi. gars yi à travers ay sessions dañuy wax ak ñoom xool na la ñuy defee ba promouvoir culture bi foofu biir Fass. Mm-hmm. élèves yi nan la ñuy def ba yëkkati résultats scolaires yi maanaam entre jeunes. nan la ñuy def ba nga xam ne instant yi comme ni ko projet bi nekkee projet pilot projet parce que projet bi projet la. ok gars dañuy xaar dañuy xaar résultat yi pour étendre ko ci yeneen commune mhm. wala yeneen dëkk. Mhm. léegi maanaam dañu sas. Mhm. léegi fi mu toll nii projet bi ñu ko sekk yëpp ku ci nekk yaa ngi béy sa waar léegi ñun jeunes yi dañoo am obligation de résultat dañu bëgg a fépp fu ñu toog gars yi ne ah jeunes yi kat li ñu doon xaar ci ci ñoom yëpp mu ngi ñoom ay modèle lañ. non seulement dañuy jàng. téye nañ seen bopp. duñ dugg ci loo xam ne dugaluñ leen ci. Mhm. moo tax violence juvénile boobu noonu gars mhm. dañ ciy accentuer. à chaque fois. Mhm. ASC dañuy wax ak ñoom dañuy wax ak ñëpp. parce que car macha allah bi ni nga ko gisee noonu am na quinze pères éducateurs au delà de quinze pères éducateurs yooyu am na quatre vingt jeunes filles yoo xam ne dañ leen former ay club des jeunes fii leader boo gisee ci biir koñ yi entre jeunes fii ñoom dañuy damalante dañuy xamalante. maanaam o delà de loolu noonu yëpp même ko pandémie bi mu amee bëgguma ci woon dugg sax am na ay gestes yu noble yoo xam ne bureau bi def na ko. envers peut-être à travers d'autres émissions. waaw ah. mhm. mais euh, da ngeen regroupé euh, Fass Gueule Tapée Colobane est-ce que yomb na parce que euh, zone boo xamante ni bu xaw a large la ngeen regrouper loolu yëpp ngir mën a liggéey ak ak jeunes yi c'est vrai que vous avez l'appui de la mairie mais est que moyens aussi c'est c'est c'est suffisant pour li nga xamante ni mooy seen combat ngeen mën a ca nam waree. waaw ñu ngi jéem rek euh, comme ni ko gars yi di waxee gars yi ne nañ Gueule Tapée Fass euh, Colobane c'est le Sénégal en miniature. Mm-hmm. maanaam rëy na ci tour mais benn la parce que même comportement yi moo am fépp ñun ñëpp benn lañ mënuñ ñu xaajale. Mm-hmm. moo tax ñu ñu ñu tracé ko noonu léegi nag euh, mois yi. UNFPA mooy la Fonds des Nations Unies pour la population mu ngi ñu ciy jàppale wax fa dëgg yàlla ci lu mu mun. Mm-hmm. à chaque fois bu ñu xewlee day ñëw taxaw def ci participation am. moo xam matériel ak financière ak ay session def nañ man mi di wax ak yow session de formation yi ma def kenn xamul lu mu toll keneen ak keneen ak keneen noonu. Mm-hmm. mairie bi tamit wax fa dëgg neex yàlla ñu ngi ñu ciy jàppale. Mm-hmm. suñu locaux yi ñu ngi foofu. Mm-hmm. d'ailleurs sax maa ngi damay damay remercier waale secrétaire général bi. parce que amul lenn lu muy def ci projet bi te duñu woo ñun jeunes yi. bu keneen na ren wax sax day na non bàyyi leen jeunes yi ñu wax parce que loolu ñoom seen wàll la. femmes yi bu ñu naree wax mu ne bàyyi leen femmes yi wax loolu seen wàll la. moom dafa tàmbali naan mbir bul ko jox sa waay jox ko waayu mbir mi. moo tax à travers émission bi tey maa ngi koy féliciter di ko nuyu di ko jaajëfal. Khadija ci loolu. Euh, par rapport ak euh, liggéey bi nga xamante ni yéen ngay def sur le terrain ngeen regroupé euh, yow en tant que présidente des jeunes filles nga regroupé zone yooyu yëpp mu xaw a yaatu. Euh, pour euh, euh, regrouper touts les jeunes filles au tour ci sa ci sa ci ci sa li nga xamante ni mooy sa projet nan ngay mën nan ngay def pour sa pour adhésion bi en fait yomb. waaw en fait adhésion bi yomb na parce que boo xoolee dañuy faral di def ay AG ay assemblée général te à chaque fois bu ñuy def AG dañu ubbi suñu groupe WhatsApp d'abord. képp ko bëgg intégrer mën nañ la jox sama numéro ñu intégrer la ci groupe bi muy gën a yomb en plus képp ko am. feebar wala nga am problème infection parce que boo xoolee léegi jeunes yi dañuy ruus a ruus di waxtaan ak seen parents yi comme surtout ñun jigéen ñi naan leen que dama am infection damay am perte blanche. Mhm. donc du coup au lieu que ñuy rapproché wu seen parents puisque ñun ñun jeunes yi. Euh, waxtaan bi day gën a yomb idée dina gën a yomb foofu pour cas dimbale suñuy moroom jeune parce que mën na ma dal ko mën na dal keneen. Mhm. donc du coup bu fekkee dal na la mën nga rapproché wu su ñun ñu mettre en rapport ak madame Conté en en plus on a des des sages-femmes ak gynécologues. à disposition. Mhm. ku soxla mu neen la faj mettre la en rapport ba doo si frais dara dara mhm. dara du si. Euh, da ngeen di waxtaan si wàllum genre Babacar wax na ko comment vous fait yéen les filles euh, ci ci ci au millier des hommes ngeen war a euh, jël la parole wax imposer seen bopp comment ça se passe. waaw ça se passe facilement parce que yow mën na parce que dañoo ñëw ñoom ñu yaatal ñu bu ñu xataloon kon du demee dañoo ñëw ñu yaatal ñu vu que ñoo ñu fa jiitu wan ñu yoon bu ñu war a jaar. di ñu teg si yoon franchement gisuñu si benn benn jafe-jafe. Mhm. amuñ ci benn jafe-jafe. Mhm. franchement. Mhm. de passage ñoo ngi remercier di saluer euh, initiative bu madame Conté. parce que lii yëpp moom la. merci. d' accord Babacar euh, su ma ñëwaatee si yow ci li nga xamante ni moo di projet bi face émergent euh, face émergent est ce que cela veut ni jeunes yi mu suñu participer si émergence su face moo tax ngeen taxawal projet bi. non même pas demeewul noonu sax. Euh, jeunes yi ba commune bi doonee commune ba tey am nañ envie participer bëgg nañ participer comprendre nga li mu la peut-être autorités yi ñoom ñoo comprendre tardivement que ne jeunes yi dañoo dañ gaa yi dañ leen war a inculper ci dispositif yëpp. léegi nag projet bi li tax phase émergent ma ma présiser préciser waale sax pour suñu auditeurs yeeg auditrices yi c'est waxuñu phase émergent parce que ne phase kese la concerné. maanaam phase émergent la projet bi tudd may Gueule Tapée Fass Colobane ñoo ci nekk. léegi nag gars yi dañoo xool indicateurs yi maanaam tubaar fakala car macha allah projet bi capture du dividende démographique lay dox maanaam jeunes yi dañu bëri trop trop trop fas am nañ pourcentage bu élevé. te tubaab yi mooy bébé tigre yi pays asiatique yi. am na modèle bu ñu tegaloon. maanaam réussir nañ à développer tout un continent ak jeunesse bi léegi nag projet bi nii ci loolu lay dox. moo tax jeunes yi dañu ci wàll bi ñu ci am boo xoolee ak femmes yi moo ëpp fuuf ay levier lañ leen bëgg a def jaar ci jeunes yi. Mhm. parce que jeunes yi boo jaaree ci ñoom rek presque da ngay cible bi yëpp. Mhm. parce que jeune bi moo nekk au milieu. mais am na lu nekk ci ginnaawam. Mhm. mooy parents yi am na lu nekk ci kanamam mooy xale ndaw ndaw ado yi ak jeunes yi. maanaam ñun ñu ngi nekk au milieu maanaam dañu nekk au cœur léegi ñoom dañuy jaar à travers ñun jox ñu ay valeur nag former ñu parce que jóguñu nii rek wax. dañu lay former jox lay ay valeur di la suivre. Mhm. par exemple entité bi ni mu la waxee nii yëpp quatre vingt jeunes filles ak quinze pères éducateurs yëpp gars yi leen dañ yi maanaam fichier boo xam ne c'est bien déterminé ku ci nekk xam nañ fi ngay jàngee. Mhm. ku ci nekk xam nañ li ngay liggéey. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ay tailleur lañ ñi ay coiffeur lañ ñi ay élèves lañ say résultats scolaires gars dañ koy suivre bu beesee assistante sociale bi dina woo say parents wax ak ñoom ne leen pourquoi lii ak lii ak lii ak lii. xale bi lii ak lii convoqué leen. kon tey jii ñoom am nañ lu ñuy xaar ci ñun. te ñun ñoo loolu ñuy xaar ci ñun nag à travers émission bi nii jeunes yi nga xam ne ñu ngi déglu émission bi yëpp maa leen di wax maanaam nañu fexe ba ñoom fi ñuy xaar nañu fekk foofu au rendez-vous. d'accord ah. euh, ci communication bi nga xamante ni moom ngeen di def di waxtaan nax jeunes yi c'est vrai boo nee SRAJ euh, jeunes yi nga nga index directement. Mm-hmm. mais wax nañ ko sànq dafa am benn tabou parfois boo xamante ni dafay am ci diggante parent ak doomam est-ce que yéen aussi il vous arrive ngeen toog waxtaan nax parent yi ngir ñoom it ñu mën a jàpp ci ci xeex bi ndax euh, ñoom ñooy ëpp lii ñuy nekk ak ak ak ak jeunes yi. ko yéen bu ngeen fa nekkul ñoom ñu nekk ay genre relais ngir mën a waxtaan ak seen doom nan ngeen di def pour briser tabou bii am diggante parent ak ak ak doom. bien sûr loolu gars yi bi ñu tëral bureau bi kooku saa été mi maanaam jël nañ ko en considération parce que bureau boo xoolee dañ leen rattaché ay bàjjanu gox am na ay bàjjanu gox yoo xam ne du ñu ay ado mais ñu ngi ci bureau bi. Mm-hmm. léegi à travers bàjjanu gox yooyu bu ñu bëggee laal cible bi nga xam ne dafa supérieur ci ñooñu la ñuy jaar pour jot cible bi. te waxtaan bu jotee du bàjjenu gox bi mooy waxtaan ak ñoom ñun ñuy jeunes yi ñooy waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. pour leur faire comprendre que ne message bi instant yi war amatul tabu xam nga mënoon nañ bàyyi bàjjenu gox bi mu wax ak maire bi wala parent bi. Mm-hmm. parent bi appliqué ko mais venant de nu tey ji yow sa doom bu ñooy toog ba ne la de ah maman man de lii ak lii ak lii moo ma dal. Mm-hmm. heure boobu noonu yow boo amoon sax boobu maanaam boo njortoon sax sujet tabu boobu nga am maanaam euh, barrage bi nga doon teg pour waxtaan ak moom ci loolu da koy dindi. parce que moom moo jël propre initiative ñëw na la lii ak lii ak lii moomu dal mhm. man mii di wax ak yow il m'arrive des fois ma toog di def causerie par exemple ay trente jeunes fii toog may def causerie ci cycle menstruel. Mhm. taxaw dessiner cycle bi yëpp. ne la lii mooy phase post ovulatoire pour wax la lépp wax la menstruation bi yëpp nu muy demee. Mhm. nga dégg eh waa kii yow muy wax nii comme si que ne menstruation yëfu jigéen la. te menstruation du yëfu jigéen la. gaa jigéen mooy gis mbaax mais menstruation du yëfu jigéen. que mm-hmm. nga nekk góor que nga nekk jigéen loolu la nga ko war a xam. Mm-hmm. parce que on ne jamais. tey jii man mi góor bu ma demee ba mun a toog ci trente jeunes fii di waxtaan ak ñoom ci lu mel noonu. Xarija mm-hmm. mi toog noonu la mun a toogee tey ci trente garçons maanaam ñu toog muy waxtaan ci infection di leen wax type d' infection yi am yëpp li koy indi naka lañ koy muytoo di leen wax signes yoo xam ne boo ko gisee dawal gaaw nga ñëw ci bureau bi. na lii ak lii ak lii que ay signe infection la. Mhm. maanaam tey jii entre ñun dem nañ ba ñu loolu entre ñun ak parents yi te dañ koy briser rek. Mhm. parce que moom léegi-léegi ci biir waxam mu ngi lay expliquer bu ñuy taxawal club bi xale yi fa nekk yëpp seen parents ñëw nañ. Mhm. ñëpp xale yi ñu ngi toog parents ñu ngi toog xale yi engagé wu nañ ñoom jël seeni engagement ne leen ah man tànk maa ngi jàng. lii ak lii jomb naa ko duma ko def. du ma joxe sam bopp. mooy li nga doon wax sànq. abstinence mooy meilleure méthode. de contraception. Mhm. mooy meilleure méthode te moom la ñuy conseiller ñëpp abstinence. Mhm. moom la ñuy conseiller ñëpp bureau club yi nag am na ay règlement yu bien déterminé léegi parent bi toog doomam toog doomam di wax ak ay moroomam di wax ak parent yi ci loolu xam nga ne parent boobu tey jii bu ñu ñubbee kër gi maanaam moom bu buggee wax ak beneen doomam bi sax tabu bi dootul am. ñun dañoo dañoo structuré de telle sorte que tabou bi la ñu njëkk a levé. Hmm. par rapport ak euh, tabou bi am diggante parent ak doom. Ah, parce que boo xoolee euh, VAD yu ñu jot a def ci SRH bu ñu duggee ci benn kër dañ fay fekk papa fekk fa yaay fekk fa doom. des fois bu ñu fekkul xale yu jigéen sax parent bi si boppam ku jigéen ki moom lañ koy expliquer mère de famille bi. moom mooy obligé di woo doom ji ne ko ñëwal nga déglu li ñuy wax nii dafa important ne dugal leen sama doom na adhéré bañ na ko ba mère de famille si boppam sax ñooy jël numéro yi pour adhérer seen doom yi si club bi. d'accord pour wala importance bu mu am. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, kon on est presque à la à la à fin de cette émission ñu bàyyi la rek Khadija peut-être message bi nga xamante ni moom nga war war a wax jeunes yi. par rapport à la SRAJ waa euh, puisque émission bi moo ngi jeex ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen auditeurs yi ngeen xamante ne teewlu ngeen émission bi mhm. di gën a ñaaxaat sama mbokku jigéen ñi góor ñi ñu abstenir comme ni niñ ko waxee rek mhm. parce que boo téewee sa bopp ba am jëkkër ndam la si yow boo téyee sa bopp tam ba am jabar ndam la si yow parce que SRAJ ni muy dawee jigéen ñi noonu lay dalee góor yi mhm. waaw te ñu bëri dañ ko banaliser or feebar yu bëri mun na si génn. te ñu bëri dañ foog ni abstinence jigéen rek la war. Mhm. góor moom alors que euh, ñaari côté alors que c'est c'est dans les deux côtés. waaw ñaari côté yëpp la la la concerne donc du coup nañ jéem a góorlu rek dañu góor góorlu waa jéem a adhéré si club yi. sujet tabu yi dañ ñu mën a avancé ci leneen merci beaucoup. merci Khadija euh, Babacar ñu bàyyi la nga terminer lancer sa message. waaw Seynabou ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal auditeurs yëpp. di wax na lii plaisir la ci ñun quoi. Hmm. ñun jeunes yi laajtewuñu lu dul lii maanaam nañu gars yi jox ñu exprimer li ñu bëgg. Hmm. wax suñuy point de vue bu baaxee ñu ne ñu baax na bu baaxul gars yi corrigé ko. Hmm. waa Khadija nag apparemment laal na fépp man lenn rek laay xanaa mooy ma ñaaxaat gars yi rek. ne bureau conseil ado bi tijji nañ mun nañu suivre ci euh, suñu page Facebook mooy bureau conseil ado. Mhm. Gueule Tapée Fass Colobane. Mhm. au delà de loolu mun nañ ñëw ci local yi. Mhm. visiter heure bu leen neex ne serait pour jël information pour orientation. waaw maa leen di sant di leen gërëm. ñu koy remercier moom Babacar di remercier aussi Khadija mi nga moo nekkoon suñu bennoon euh, invité di fàttali ñoom ñi ngi bokk ci euh, li nga xamante ni bureau conseil ado bu nag si euh, wàllum SRAG yi ci lëkkaloo boo xamante ni ab projet la bu de tuddee euh, programme euh, projet face de projet face émergent ñu ànd sa waa UNFPA ministère de la jeunesse à travers PPJ commune bu Gueule Tapée Fass Colobane ak rajo Afia bi nga xamante ni ñoo leen doon dégtal bile émission mbokk yi ñu leen di jaajëfal seen teewlu di leen dikkaat ak yéen si yeneen émission ba tey ak waa Fass di waa Fass émergent ak waa bureau conseil ado bu Fass Gueule Tapée ngeen jëf